ñuy nuyu ñëpp fu waay mën a nekk di leen ñaanal yiw wi yàlla sotti ci kaw jaam yàlla bu mu ump kenn bëtu yërmande ak njéggal bi muy xool jaam yi ko yàlla xool yal yàlla boole ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tey nag ñu dikk ak yéen ci suñu jotaayu sukran euh, ci booloo doon benn bañ a tàqali ko ndax nag lu yitteel yàlla la sunu borom bi subhanahu wa taala ndax nag yàlla moom moom moom moo ñu tuddee ay jullit te bi nga xase ba doon jullit am na loo xam ne moomatoo ko ci sa bopp lenn li da ko moom li ci des say bokki jullit a ko moom li ci def say bokki derete ko moom te yàlla na dafa bëgg ñu booloo moo tax mu wax ko ci alquran ba noppi tere ñu tàqali ko wax ci alquran ne waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wa qaala aydan wala takunu kalladina tafarraqu waxtalafu min baadihim min baadi ma jaahumul bayinaatu ulaika wa ulaika lahum azabun azimun euh, yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala nee na ñun julli ni nañ booloo ci génn buum buum gi mooy lan muy buumuk yàlla gidi di buum gi mooy lan muy buumuk yàlla gi di sunna si yonent bi alayhi wa sallam ndax nag yonent bi bi mu demee ba war a tàqalikoog ñun daf ne woon taraktu fiikum amrayni lan tadillu baadi ma in tamassaktum bihi mooy kitaabullaahi wa sunnati yontu sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon maa ngi leen di woon gannaaw waaye bàyyi naa ci seen biir ñaari mbir yoo xam ne su ngeen ci jàppee te bàyyiwu leen ko du ngeen sànku mukk sama gannaaw mu mel ni dañ ko laaj ne ko yow mi yàlla yónni yi ñuy jàpp mooy lan mu ne téeréb yàlla bi fexe leen ba jàpp ci bu leen ci réeroo sama sunna si na ngeen fexe ba ngoy ci bu leen tàqalikoo euh, yàlla wax ci alquran nag ne bu leen mel ni ñi nga xam ne dañoo tàqali ko woon wuute ci seen biir gannaaw bi ma leen joxe ay téere yu leer naññ ñooñu kat man yàlla maa ngi leen di xaari mbugal mu yaatu ta metti yàlla nañ ci yàlla musal moo tax yàlla wax ci alquran ne kaana annaasu ummatan waxidatan fa baasa allahu nabiyina mubassirina wa mundirin wa anzala maahum alkitaba bilxaqi li yaxkuma bayna annaasi fi ma xtalafu fiihi wa ma xtalafa fiihi illa alladina uutu min baadi ma jaatuhum albayinatu bagyan baynahum fa hada allahu alladina amanu li maxtalafu fihi min alxaq bi izni wallahu yahdi man yashaa ila siraatin mustaqim yàlla nee na nit ñi dañu doonoon benn bopp biñ ko doonee moom yàlla ci boppam ci yërmandeem mu feeñal ci sun biir ay yonent ci xeet yi ñu jiitu woon yonent yoo xam ne biñ egsee liñ fi doon def mooy waare ak bégale jox leen ay téere yoo xam ne nit ñi mën nañ cee jaar tënk ko muy constitution boo xam ne ku jàdd yoon ci lañ lay orienté waaye ñu nekk ci seen biir di ko xëccoo nag ba tàqali koo am ci seen biir ak wuute gannaaw bi leen nag leer gu mat sëkk dikkalee ci yàlla jox leen ndaw jox leen ay téere waaye ñu wuute ak yàlla indi woon waaye yàlla moom toujours foo fekk mbooloo am na ca ñoo xam ne yàllaa leen di orientel boppam teg leen ci yoon ndax yàlla nag mooy teg ku ko soob ci yoon wu jub wi ne xocc wuti ko kon mbokk yi lim ciy déggee mooy jullit bi warta fexe ba tàqali ko ak mbokkum jullitam gannaaw bi mu seedee ne baati seede yi nag ne dëgg la tudd na baati seede yi wéetal yàlla def ko muy kenn leneen la ca des léppit nag sa yoon nekkatu ca nag bàyyeekook yàlla te ñaanal ko yàlla su fekkee dafa nekk ci safaan yàlla génne ko ca safaan boobu mu nekk ba tege ci yoon moo tax nañu ngoy ci buumug yàlla gi ngoy ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa te bañ a tàqali ko gannaaw bi mu ñu indilee nag lu leer parce que suñu ko defee rek mooy dana indi ci suñ biir réeroo goo xam ne lam ñuy jural mooy noononte ak bañante te noononte ak bañante googu day dem ba kenn ku nekk di feeñal ngëneel yi nekk ci yow mooy lan mooy diw a gën diw sama sëriñ a gën sa sëriñ sama tariqa gën sa tariqa su boobaa tariqa yi dañuy dem ba dañ koy mujje bocce def ko jaasi di ci xeex te dara gënu ca te tariqa nag bokk yi bokkul ci yi ñuy laaj ci biir bàmmeel nañu xam ne it nag dafa bokk ci yi nga xam ne day yàq ak njullit mooy noonoo ak féewaloo dafa yàq ak njullit parce que lim ñuy jural mooy ak bokk gu dog danga dem ba jël tarixa jàpp ne tarixa bi nga nekk gën bi keneen ne te amaana rakk joo xam ne yéen a bokk menn menn wala genn geño te bokku leen benn tarixa su boobaa kooku noonu nga koy def parce que da ngay jàpp nekkul ci dara te loolu gënul parce que mag ñi nag bi ñu fi nekkee tamit li liñ doon woote mooy jenn yàlla lañ doon woote benn yonent lañu doon woote ndax nag tarixa yi li ñuy bari bari bari ñoo bokk benn fatiha bi mbokk yi li ñuy bari bari bari ñoo bokk jenn yàlla li ñuy bari bari bari ñoo bokk benn yonent waaye sëriñ si luñ doon doon doon doon ay càllale da nga koy seet ci juróomi baaraam yi la yàlla jox benn boo ci dagg sa jëmm ji dana ko yëg te da nga xam ne am na lu manqué ci yow ndax ñoom ñëpp bokk benn loxo biñ sax kon mbokk yi fa lamma nasina xaddana mimma dukirna bihi min altamasuki bi hablillahi jamian fa saara kulluna taifatun minna yaquluuna innana fulaniyuuna wa tariqatuna fulaniyatun shattata allahu samlana fa agara allahu baynana aladaawata walbagdaa illa an yatiya allahu bi amrihi mbokk yi gis nga bu ñu demee ba fàtte li taxoon yàlla fasi suñu diggante ne ànd leen doon benn parce que waxoon na ko ca alquran ne innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum wattaqullaha laallakum turhamuuna yàlla waxoon na ne jullit ñi ñëpp ay mbokk lañ moom yàlla ñun biñ doonee ay jullit seeteetul kii fu mu bokk seeteetu déedéet daf ni ñëpp ay mbokk lañ kon nag ay bokk buñ bokkee li war ci seen diggante pour bokk ko dox mooy nañ seet nu gën a rafete tañu ragal yàlla nag te xam ne nag yàlla ak ñu dig yërmande joo xam ne kenn xamul nu mu toll mbokk yi nañ bañ a jël tarixa yi kenn ku nekk di fëgg sa dënn di woote waa naan man tarixa sàngam laa bokk ñun suñ tarixa mooy nàngam loolu amul benn sens ndax tarixa duñ ko laaj ci bàmmeel te it nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon ne yàlla bu fekkee am na loxo loxoom mi ngi ko sóob ci biir mbooloo ndax yaddullahi ma al jamaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ni ku tàqali ko am mbooloom lislaam mi wala ummatul islam bi yëpp doon benn yow nga génne ca sa bopp gis ne bokku ñoom gis-gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na takkandeeru aljanna sax doo bokk ci ñi koy gis yal ci yàlla musal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ne sa tafarraqu ummati isnayni wa sabaina firqatun naajiya minhum waxidatun qaalu ya rasul wa man il firqatu naajiya qaala man kaanu ala ma ana fihi wa ashaabi yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ñu jàngaloon ne sama xeet wi danañu tàqalikoo juróom-ñaar fukki pàcc ak ñaar waaye nag am na ci ñoom kuréel boo xam ne ñoom dong muy mucc saxaaba yi laaj ko ne ko yow mi yàlla yónni ban kuréel ñoo ciy mucc mu ne kuréel bi nga xam ne ñi ngi teg seen tànk fi ma teg sama tànk man ak sama saxaaba yi kon liñ ciy dégg mbokk yi jullit du tàqali ak mbokkum jullitam moo tax yonent bi jàngaloon ñu ne euh, jullit ñi dañoo mel ni benn tabax bu ci benn kenu génnee tabax bi yëpp koy yëg masalul mumini fi tawaadudihim wa tarahumihim wa taatufihim ka masalil jasadil waaxid ida staka minhu uduwun tadaa lahu saa'irul jasadi bi shahri wal hamaa yontu sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon misaalam jullit ñi su ko dee joxe daf koy joxe ci jénn jëmm nga gis ne sa jëmm ji mën ngaa xëy sab loxo di metti làmmiñ wi dana ko jàmbat ba àddina bépp xam ne loxooy metti waaye nga gis ne it tànk bi danga ko ne bul génn kër gi tey ndax loxo day metti fa nga daan liggéey daañu la woo laaj la lu la teree ñëw nga ne sama loxo day metti pourtant tànk bi day amut lu koy metti waaye dafa solidarité loxo bi yëg ne am na lu ko metti mu xëy tëbb ci kër gi lànk ne du génn làmmiñ wi it fu mu toll di ko jàmbat jàmbatle kon mbokk yi jullit ñi suñu bëggee li leen yàlla boole ñu tabax ko mu dem dañuy booloo doon benn te bañ a tàqali ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nattoon suñu diine ak suñu pas-pas ci génn jëmm ne su ngeen àndee mel ngeen ni génn jëmm joo xam ne ànd na kon bokk yi ànd moo gën tàqali ko ànd moo gën tàqali ko nga seet ne sax ndog ment sax bu doon dogale ay gàtt tey ba ci gën a séparé wu moom lay topp waaye du topp yi nga xam ne ñoo ànd kon yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp yàlla nañu yàlla def ay dëgg-dëgg jullit yàlla nañu yàlla noso ci buumug lislaam gi nga xam ne genn la yàlla nañu yàlla defal jàmm te defal leen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu